Salimata siyaar naa la <laughs> mbaa yaa ngi ci jàmm Salimata Salimata fàttewuma la de démb après damaa duggoon ci ay ruq rek moo tax déggante wu naa dégg nga Omar Diallo na <laughs> Omar gëj naa dégg moo bii de na fan yii nga de fois damay gëj a génn quoi di live mais yitte yi rek mais fi ni ne nii moom toogaay jeex na quoi. ok Saly ok ñoo fal Omar Diallo Omar maa ngi lay nuyu yow moom gën nañ déggante quoi maximum de partage waaw waxtaan waxtaan bu gaaw a gaaw a gaaw Moukhtar Sow cher naa la Pape Ndiaye la dégg de mbaa yaa ngi ci jàmm naka liggéey bi dana danga bàyyi sa tons waa gars yi waa ñu waxtaan juste rek waxtaan bu gaaw te te am solo Euh, ndax yaakaar naa ni moom fi mu toll nii moom euh, Sénégal képp koo xamante ni yaa ngi wax te waxoo lu sauver ndaw ñi mooy euh, yaa ngi caaxaane réew mi te wax li sauver ndaw ndaw ñi li ci jiitu mooy wax ci Ousmane Sonko waaw wax ci la destin xam nga ak wax ci futur Ousmane Sonko loolu mooy mooy li nga xamante ni mooy sauver ndaw ñi. Mbaye Ngolom Mbaye Ngolom gën naa la dégg nagam yaa ngi ci jàmm <clears throat> kon gars yi li ma doon wax mooy euh, yaakaar naa ni moom képp ku bëgg wax avenir u réew mi bëgg wax ci jafe-jafe yi ndaw yi ñu di dund faaw nga wax jafe-jafe yi nga xamante ni Ousmane Sonko ci la nekk ndax dafa lié munoo ko séparer ndax yaakaar naa ni Euh, jamono yi bu ngeen gisee métit bi këppwaat ci kaw jeunesse bi ak manque d'espoir bi nga xamante ni dalaan na ci kaw jeunesse bi du leen lu dul Ousmane Sonko mi ñu bëgg a emprisonner par force éliminer ko ci élection loolu rek la gis ngeen gars yi man je me dis que ni des fois ñun dañuy gis dëgg gi jàkkaarloog moom nii di tey tey lu quoi te ñëpp xam nañ ni ñëpp xam nañ ni xale yi espoir bi ñu amoon espoir bi ñu amoon dem ba bërki dem ba tax ñoom ñu taxaw di xeex li nga xamante ni mooy dëgg ànd ceeg Sonko loolu bu demee tey ba yaakaar googu bëgg a tas moo waral tey nga gis xale yi taxawaat takku pour demaat ci gaal gi pour rey seen bopp gars yi heure dëgg dafa jot heure wax dëgg te yàlla tax dafa jot gis ngeen Sénégal mënatul continuer di di di di doxee nii te li waral mënatul li waral dootul continuer di doxee nii maanaam lépp ñun ci sunu taxawaay la lépp ci sunu engagement la lépp ci sunu détermination la li nit ñu war a xam mooy réew mi li fi nekk nii ñu koy dund 1960 ba léegi loolu la ñuy dund bu leen jàpp ni musuñu jàpp homme politique di ko bundu xatal de wala bu leen jàpp ni musuñu jàpp homme politique génne ko ci ay élection par A ou bu leen jàpp ni ñu jël homme politique tëj ko kaso injustement am na fi de amaat fi amaat fi l'histoire se répète l'histoire se répète léegi nag li waral histoire boobu noonu dootul répété maanaam lépp dafay dellu si suñu nii nga xamante ni ñun lañ naan le peuple sénégalais loolu c'est important ngeen xam ko tey li xew Sénégal nii ci le cas Ousmane yàgg na xew Sénégal et yàgg na xew partout en Afrique loolu yaakaar naa ne du loo xamante ni dañuy toog fii di leen ko wax parce que yéen ñëpp ku ko fekkewul yow sa mag fekke na wala sa nijaay fekke na wala sa papa fekke na wala sa maam fekke na maanaam Sénégal li fii xew nii ak ni muy doxee nii yàgg na fi xew yàgg na doxee nii Sénégal li fi xew nii ak ni muy doxee nii ay génération dund nañ ko dund nañ ko dund nañ ko ba ñun ñu ñëw tey ba suñu génération di ko dund kon nag léegi bu fekkente ne ñun dañoo bëgg dindi li nga xamante ni lii moo tax réew mi mel nii mu mel kon yaakaar naa ni dañu war a am jug taxaw nag takk suñu fit am taxawaay bu mat sëkk man loolu laa gëm gis ngeen gars yi bu ñu delloo ci histoire Mamadou Dia biñ koy jàpp fii Mamadou Dia biñ koy jàpp fii tëj ko injustement Sénégal yëpp taxaw di seetaan ñu génn ko ci ay élection injustement tëj ko ba mu gumba ci kaso bi injustement boobu lenn moo ko waraloon mooy conserver le pouvoir am un groupe de gens boo xamante ni ñoo ànd ak jamono yooyu ki fi nekkoon président muy Léopold Senghor Senghor loolu da ngeen ko war a xam kon moo tax ma ni ka Ousmane Sonko histoire la buy répété wu léegi nag dafa jot ñu ñu jug taxaw ne lii nii doy na sëkk Sophie maa ngi lay jaar nuyu naa la Motaar Sow nuyu naa la léegi nag Mamadou Leye maa ngi lay nuyu léegi nag dafa jot ñu ñu jug taxaw ne li nga xamante ni tey sunu mag yi dundoon nañ ko li nga xamante ni sunu yaay yi dundoon nañ ko sunu papa yi dund ko sunu nijaay yi dund ko ñun nag dafa jot ñu ñëw ñu taxaw na ñun dañ koy arrêté li tax ñu koy arrêté nag du tax ñun sunu jëm yi taxul mais nag dafa am benn concept boo xamante ni il faut ku nekk intégré ko ci sa biir bopp mooy sunu doom yeeg sunu soti man lii ma dund nii waruñu ko dund niveau xeex bi foofu lañ ko war a yóbbu parce que buñ ko yóbbuwul foofu rek dañuy am ay difficulté gis ngeen lii xew nii ci cas Ousmane Sonko wax naa leen ko waxaat leen ko du la première fois yàgg yàgg nañ fi te politicien injustement génn ko ci élection mën nañ fi mën nañ fi lim ba suba duñ fi jóge rey nañ fi ay ñoo xamante ni tey dañ daan taxaw di bañ du benn ñaata ñett ñaata nit lañ fi rey du lu bees de nit ñi jàpp nii di leen rey nii di leen emprisonné injustement tamit du lu bees képp ku yàgg taxaw di bañ nooteel dan lay indil ay gàllankoor léegi nag yéen peuple bi li ngeen war a xam mooy omelette boo ko bëggee def il faut nga toj ay neen omelette boo ko bëggee def il faut nga toj ay nen te toj ay neen ça ne pas dire que nag yàq nga ay nen Matar Ndong maa ngi li ngeen war a xam mooy Pastef et le président Ousmane Sonko waxaan naa ko dinaa ko waxaat li ñu waroon def yëpp def nañ ko loolu da ko war a xam te li ngeen war a xam mooy Pastef munul def lu ëpp lii mu def loolu il faut ngeen xam ko ndax Pastef li muy def ni Pastef en tant que parti taxul te Ousmane Sonko en tant que leader taxul ñoom ñuy def li ñu def mais li ñuy def ni c'est le peuple sénégalais qui souffre moo tax ñu koy def il faut geen comprendre lool lu tax vous ne vous par les questions lan moo tax ñu ne Ousmane Sonko par A ou dinañ ko tëj kaso lan moo tax ñu ne par A ou B Sonko dinañ ko génn cee élection mais il faut que chaque Sénégalais se pose ces questions parce que tant qu'on ne pose pas les questions on peut pas régler ce problème il faut il faut que loolu ñu xam ko tant que nekkuñu di pose question yooyu ku ci nekk ngay poser wu question yooyu noonu lan moo tax ñu bëgg a tëj Ousmane Sonko. injustement te kii deful dara lan moo tax membre Pastef buñ jàpp tëj ci kaso bi te boo xoolee du def dara lan moo tax ñuy jàpp waa Pastef di leen rey lan moo tax waa Pastef di exilé wu ñu leen di génne dëkk bi par A ou ñu leen di obligé di leen pousse ba ñuy daw di gàddaay di génn dëkk bi pourquoi les Sénégalais ne se posent pas ces question te pourtant nag waa Pastef li ñuy xeex nii kat pour sénégalais yi la il faut que les sénégalais sa posent ces questions gis nga gars yi gémmiñ bu waxul dëgg wax ay fen gis nga Sénégal li fi nekk nii li fi nekk nii tollatuñu foo xamante ne dañ naan benn parti politique moo koy xeex wala tollatuñu foo xamante ne dañ naan benn groupe de gens moo koy xeex li nekk Sénégal ce son les sénégalais qui doivent sa battre contre ce régime c'est ça la réalité gis ngeen gars yi Olof Ndiaye dafa ne duma topp diw foo ko déggee fa ngeen jëm a soriwul léegi nag ñun comme que ñu ne régime bi fi ñu dafa sori mais il faut ñu topp régime bi ba jusqu'au bu il faut que les sénégalais sachent ça gis nga wax di raayante wala wax di fóonante wala wax di di neexalante loolu dafa jeex léegi loolu amatul njëriñ xam nga lan moo am njëriñ maanaam ñu dem ci but bi direct mooy Ousmane sonku mii tey buñ ko sauver mooy sauver nañ ndaw réew mi Ousmane Sonko mii tey buñ ko taxawoo. mooy taxawu nañ ndaw réew mi Ousmane Sonko mii buñ ko falee mooy fal nañ ndaw réew mi loolu mooy li nga xamante ni moo am solo il faut que chaque sénégalais se pose cette question parce que gis nga dafa yomb trop yomb trop ñu taxaw naan ndeysaan waaw Ousmane Sonko euh, yàlla baax na nangam sangam Ousmane Sonko risque yi muy jël loolu yëpp baax na mais da nga war a indi convoqué yow en tant que sénégalais mais lan moo tax Ousmane Sonko moom kese moom kese jàngu fi moom kese jaaru fi impôt et domaine moom kese amu fi liggéey moom kese nekku fi administration moom kese jaaru fi impôt et domaine nga posé wu question yi nga wa waa léegi lu taxu loolu noonu yëpp am man ma xam ne du Ousmane Sonko kese moo ñàkk du Ousmane Sonko kese moo dem école ci dëkk bi du Ousmane Sonko kese moo dem administration ci dëkk bi mais la moo tax Ousmane Sonko nangoo sacrifier liggéeyam ndax Sénégal mais posez-vous ces genre de question maanaam pour pour résoudre sa problème il faut qu'on se pose ce genre de questions la moo tax Ousmane Sonko sacrifier yaayam sacrifier njabootam sacrifier jabaram sacrifier ay doomam sacrifier ay xaritam sacrifier ay andi jàmmam sacrifier liggéey bi nga xamante ni mooy teraanga doomu aadama ne moom léegi day taxaw loolu noonu yëpp mu tegeeku na le ngir Sénégal am jàmm pourquoi vous ne vous posez pas la question la moo tax Ousmane Sonko daal di ne pour réew mi baax jalal na ma sama bakkan mais personne n'en kenn du xalaat loolu ko léegi loolu bu ñu ko du xalaat nous on pourra jamais régler ce problème le problème de ce pays il faut que ñu ñu régler ñu ñu régler problème boobu ba pare parce que dañu jëm ci date bu am solo muy le 17 le 17 justice war a taxaw tey nem day atte li nga xamante ni moom lañ génne Ousmane Sonko ci élection yi te justice boobu ñëpp xam ni dafa am ku ne ci ginnaaw ku tudd Macky Sall di ko manipuler muy taxawaay bu am sëkk boo xamante ni sénégalais dañ dañ ci war a dañ ci war a jug taxaw kon yaakaar naa ne bu ñu waree jëm ci bis bu mel noonu sénégalais bu nekk war na taxaw def prise de conscience daal di ne ñun Sénégal la moo tax 1960 ba léegi amuñu leader bu ñëw politique taxaw sacrifier liggéeyam ndax le peuple sénégalais li mu c'est important tey peu de gens ngay gis ñu ñamee taaw taxaw sacrifier seen liggéey ndax seen peuple lan moo tax cent 1960 ba léegi amuñu lider boo xamante ni taxaw na sacrifier jabaram ndax Sénégal lan moo tax 1960 ba léegi amuñu leader boo xamante ni taxaw na sacrifier ay doomam ndax Sénégal lan moo tax 1960 ba léegi man musuma dégg leader bu taxaw daal di ne ah man mii de kat Ousmane Sonko. Sénégal baax jaral na ma sama bakkan ce sont ces questions qu'on doit se poser loolu mooy li am solo du Ousmane Sonko rek mooy fay moo daan fayeku salaire ci dëkk bi pourquoi on se pose pas la question la moo tax Ousmane Sonko sacrifier salaire te amul benn sénégalais bu toog di xalaat naan Ousmane Sonko ba mu sacrifier salaire ba léegi lan ak lan lay dundee ndax la peuple sénégalais problème nag boo ko bëggee régler il faut nga xam lan mooy origine problème bi parce que xeex bi ñuy xeex nii nit ñi li ñu war a xam mooy du lañ koy xeex parce que dañu ne dañuy def Ousmane Sonko président par force xaaguñu loolu ku yaakaar ni loolu la ñuy xeex kon c'est mal compris te loolu mooy sunu problème nag parce que ñu bari dañoo yaakaar ne ñoom ñun dañuy xeex pour def Ousmane Sonko président de la république Ousmane Sonko bu fekkonte ni moom moom day xeex pour nekk président de la république mais day naxante comme ñun mag comme comme ni ñoom mag comme Macky Sall ni mu naxantee ba jël réew mi def ay compromis ba jël réew mi Ousmane Sonko peut bien la faire n'est-ce pas kon loolu benn la ci liy firnde ni ñun xeexuñu pour def Ousmane Sonko président de la république te loolu leneen la luy firnde ni tey Ousmane Sonko nekku fi pour nekk président de la République loolu c'est important parce que Ousmane Sonko moom bu fekkonte ni nekk président de la République moo ko tax a jóg mais il pouvait faire des compromis au dos du peuple munoon dem nangul France li mu bëgg jël réew mi c'est c'est plus pour moom pour mu nekk président de la République munoon na dem naxanteeg Macky Sall munoon na dem naxanteeg Macky Sall ba Macky jox ko réew mi wala ba Macky jàppale ko mu jël réew mi mais Ousmane waxul lool de Ousmane dafa ne man dama bëgg changer réew mi changer réew nag ak nekk président de la République ce son deux choses différentes il faut que les Sénégalais comprennent sa parce que sunu xeex bi li ko handicapé la dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy beaucoup de Sénégalais dañ ci topp ni di ma riiraloo mais xamuñu lan la ñuy xeex c'est pour changer le Sénégal maanaam changé doxalin bi fi nekk Abdallah moo grand frère maa ngi leen nuyu Yoro Diallo namu naa la ba ba Ali maa leen nuyu loolu nag il faut que nit ki nga xamante ni moom dafa nekk ci xeex bi xam loolu Ousmane Sonko dafa ne man bi ma juddoo 1960 ba léegi Sénégal gii ma gis nii muy doxee neexuma nii muy doxee doyuma dem gëstu lan ak lan ak lan moo tee Sénégal ba Sénégal munul dox mu ñëw taxaw ne man lii ak risque lu mu rëy rëy rëy rëy rëy dinaa ko dina ma ko jaral pour Sénégal changer n'est-ce pas Ousmane Sonko dafa ñëw taxaw ne risque bi lu mu rëy rëy rëy rëy rëy jaral na ma ko pour pour pour pour Sénégal changer donte sama bakkan bu ci xajee n'est-ce mu ñëw taxaw ne lépp lu mu lu ci mënti am dinaa ko assumer taxaw def face perte liggéey jot mu perte ci liggéey ba day continuer xeexam ñu jiñ ko fi viol rey ay àndandoom tëj ay àndandoom mu xam ni loolu noonu yépp pour gagner xeex bi il faut mu am ci parce que moom dafa gëm ni lii muy xeex ni xeexut pour moom dafa ne même bu may jee maanaam ñeneen ñiy ñëwaat après man bu ñu dund lii bu ñu dund lii may dund ay gars il faut que ñu xam lan la ñuy loolu dama leen bëgg a misaal ne réew bu ñu ko bëggee changer ñun ñuy xeex xeex bi ñun ñuy nekk ci lii di xeex xeex bi muy man muy keneen muy keneen ak keneen. yow intérieurement li nga war a njëkk a xalaat mooy lii may dugg nii di ko xeex man sama jëmm ji taxul samay doom ak samay sët ëllëg ñoo tax léegi nag ñun bu fekkente ni tey dafa bari ñu nekk ci ñun ñuy àndandoo di xeex xeex bi te ñoom dañu jàpp ni xeex bi ñoom ñoo ko war a jariñoo les fruits. loolu mooy gàllankoor xeex bi parce que day tax yow risque yi nga war a jël ak la la war a fekk tey ba ñu am ndam ci xeex bi yow doo ko def parce que yaa ngi xool fruit ya nga ca war a lekk ëllëg et c'est ça le problème mooy sénégalais yu baree baree bari dañ jàpp ne ñoom bu ñu génnee xeex Ousmane Sonko la ñu génnal xeex parce que da koy dégg des fois ci yenn ci yenn discours nit Ousmane Sonko moo tax man may xeex non là tu passes tu passes totalement à côté wala yow da nga jàpp ne yow mi ngi xeex bu ñu gañee xeex bi yow yaa war a jariñoo xeex bi yow tu passes totalement à côté tu entends des dire man bu ma demee prison Ousmane Sonko moo tax ma dugg prison parce que moom laa doon xeexal non tu passes à côté ba ci ci dee moom dee uti ndax Ousmane Sonko da ci dee parce que dafa am ay doom ay sët yoo xamante ne ëllëg moom bëggul li mu dund doomam yem ak sëtam yooyu dund ko léegi nag foofu dama ci ubbi parenthèse mooy li xew ci gaal yi tey beaucoup de sénégalais pensent que ni bis bu ñu jëlee gaal gi dugg Europe ñoom rëcc nañ non rëccuñu ëllëg da nga am ay doom te yaakaar naa ni yow coono yi nga daj Sénégal ak métti yi nga daj Sénégal tey ba tax nga ni yow da ngay dugg gaal daw daw génn Sénégal mais xanaa ëllëg ñaanoo yàlla yow sa doom yeeg sa sët yooyu ëllëg ñu dugg gaal gi te lii waral nag sa doom yeeg sa sët yooyu ëllëg du ñu dugg gaal mooy nga xeex ba réew mi changé c'est ça l'objectif de ce combat il faut que nit ñi xam loolu kenn ku nekk ci ñun conscient que ni man je dois me battre corps et âme pour li nga xamante ni mooy future génération yi di ñëw loolu nag bu fekkente ni mënuñu ko comprendre ñun wala loolu bu fekkente ni ñun ñu yegg foofu kon je pense que ni on passe totalement à côté te loolu moo xaw a gàllankoor suñu xeex ku nekk na xalaat ni dafay am ay doom doom yooyu muy am ëllëg moom ñaanu lii muy dund ay doomam yooyu ak ay sëtam ñoo dund te lii tax loolu noon doom mooy ñu taxaw xeex dëgg ba dëgg bi tegu ci Ousmane Sonko waxul leen lu dul jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci Yoro Diallo ah, gis doo sama purification loolu nu mu demee xaar après ñu lijjanti ko léegi Ousmane Sonko jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci ay loolu xanaa loolu nag lool kan moo ko war a mën a bañ ci ak dëkk jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu ku bëgg bëgg dëgg wala ku bëgg lu baax loolu mënoo ko bañ li nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu ñëpp dañ ci war a jot Ousmane Sonko loolu la woote wootewul leneen lu lool léegi nag dafa am loo xamante ne nit ku nekk ci ñun daf ko war a xam mooy on ils veulent éliminer Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko li mu woote bis bu faloo day am mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu rek la c'est ça le problème bi li muy rëy rëy yëpp ak wiiri wiiri beeg jaari ndaare beeg yëpp loolu rek la Ousmane Sonko dafa ne jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci ñële taxaw ne li ñëpp bokk ñëpp duñ ci jot mais c'est ça le problème problème politique am Sénégal yëpp loolu la du leneen lu loolu du leneen lu loolu léegi nag sénégalais yi yaa xayti yéen yéen a war a conscient xool ki leen jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci ak ki leen ne li ñëpp bokk ñëpp duñ ci ngeen def nag léegi seen analyse xam léegi yéen nan ngeen war a taxawee parce que tey xam nga dafa am loo xam ne rek dafa war a tax ñu xeex ba dee Sénégal bërki dem deux cent et quelques personnes dee ci gaal du sëriñ du kilifa diine du du du du journaliste du télé du lenn loo xamante ni taxaw na kat méttitul loolu amul benn télé boo xamante ne jël nga affaire bi wala benn rajo wala benn journal boo xamante ne jël nga ko def ko à la lu tax defuñu ko mooy parce que dañ jàpp ne ñoom buñ ko defee buñ ko defee dañuy yàqal pouvoir bi moo tax duñ ko def kon loolu yéen askan bi war na leen yee ba ngeen xamante ni tey réew mi kenn du leen fajal seen problème ku dul yéen loolu da ngeen ko war a xam gis nga daw génn jaar ci gaal yi dem loolu nekkul solution parce que li tax nekkul solution yow boo dawee ba génn rëcc da nga am doom mi ci dëkk bi ëllëg sa mag mi ngi ci dëkk bi sa rakk mi ngi ci dëkk bi te ils vont continuer à subir à vivre li nga xamante ni tey yow moom nga vivre ba daw ba tax nga daw génn dem gaal gi ñu ñu nekk Europe ñaata at nga nekk Europe te xanaa tey yaa ñu ñun ñu nekk fi ñëpp ku ci nekk ñaan nga yàlla tey nga dem investir Sénégal loo xamante ni tey di nga mën a créer ay emploi mais moodu moodu yu bari duñ ko xalaat parce que dëkk ba ni muy doxee moo baaxul léegi nag li waral ñu bëgg a éliminer Ousmane Sonko yëpp loolu la dafa ne jot na li ñëpp bokk Sénégal yëpp jot ci ñee taxaw na li ñëpp bokk Sénégal yëpp duñ ci jot ñun un groupe de gens ñoo koy taxaw aakim moo ko jël justice bi nga xamante ni sénégalais yi ñoo ko moom di ko fooye léegi justice bu fekkente ni Macky Sall da ko jël di ko fooye loolu ku ko war a xeex-xeex boobu ngeen yaakaar ni Ousmane Sonko la wala man mii wala Pastef la non vous vous trompez lool loolu c'est le peuple sénégalais moo ko war a xeex parce que peuple bi moom moom justice peut-être dama yaakaar ni sénégalais yi bari comprendre mu nga noonu parce que dañ ne la justice est rendue au nom du peuple kan mooy le peuple c'est les sénégalais kan mooy les sénégalais mooy képp koo xamante ni tey yor nga carte d'identité nationale du Sénégal kon yow bu ñuy xeex loo xamante ni yow yaa ko moom kenn waru la ci jiitoo am na wala amul bu ma juumee ngeen na ma da ngaa juum Pastef dafa am loo xamante ne xeexam la te xeex na ko te am na si ndam mooy xeex ba yee sénégalais yëpp tey képp kuy sénégalais fii Ousmane Sonko war nga ko delloo njukkal parce que yee na la mais loolu mooy li am muy man muy sama morom muy keneen ak keneen Ousmane Sonko ñun ñëpp fekk nañu ñuy nelaw mu yee ñu am na woon amul Ousmane Sonko jël na risque dem tëddal ma kaso. jël na risque ñàkk liggéeyam ndax man kon man maa war a delloo njukkal Ousmane Sonko man maa amel njukkal Ousmane Sonko dëgg loolu dëgg parce que tey Ousmane Sonko tey moom bu budu woon man budu loon man mii mi nga xamante ni man maay la sénégalais du dem di ñàkk liggéeyam du ko def mais dañu woon dëgg budul woon man la sénégalais du dem di jël ay risque bañ koy tëj ay kaso du sacrifier doomam du sacrifier njabootam di daj lii lépp muy daj kon nag il est temps de rendre à César ce qui ñun sénégalais yi maanaam jot na nag ñu xam ni on doit être debout taxaw nekk benn say faire face avec ce régime loolu mooy li am loolu mooy changer dëkk bi ku leen wax lu dul loolu da leen di nax du justice du sëriñ du du kenn koo xamante ni mën na changer dëkk bi ku dul le Sénégal et le sénégalais loolu mooy li am amul leneen lu fi waaye mën a wax ay bureaucrate ak ay nangam ay wax picc amul xeex ak Macky Sall moo fi nekk Ousmane Sonko yàgg na leen ko wax Macky Sall mii lenn du ko fi jëlee dul xeex Seydi Lamine Niass ndam si yàlla l'avait dit te Seydi Lamine Niass te ku ko xam xam ni bokk na ci ñi fal Macky Sall Seydi Lamine s'est sacrifié ndax Macky Sall Seydi Lamine a perdu beaucoup de choses ndax Macky te keroog dafa taxaw yàggul dara dañoo fal Macky Sall yàggul dara mu taxaw daal di nañu Macky Sall mi ay carte du ko fi jëlee te effectivement il avait raison kon nag li ngeen war a xam mooy dëkk bi képp ku leen naan dina baax ci ay naxante wala képp ku leen naan dina baax ci ngeen di daw jël gaal yi di génn mi ngi leen di nax dëkk bi li koy defar du lenn du dul xeex ngir ëllëg sunu doom yeeg sunu sëti duñ ñu xool di ñu jéppi tey man man laa man bu ma xoolee mag ñi fekkoon Mamadou ja damay am lu ma naqari parce que bu ñu xeexoon li ñun duñ buñ ñëwee duñu xeex day dañuy ñëw jël liñ yor def ko ci dëkk bi dëkk bi di dox loolu mooy li am kon nag le seul mot d'ordre mooy le 17 ñëpp jug taxaw xeex bu Ousmane Sonko bokk ci élection yi loolu mooy li am ku bëgg a sauver jeunesse bi da xeex bu Ousmane Sonko bokk ci élection gis nga yaakaar yaakaar gu tas yaakaar gu tas mën na tax nit dem def loo xamante ni bugg ko woon sax def vous pensez que ni ces yi songu géej gi di braver seen mer ñooñu dañuy dem parce que dañ jàpp ni Europe dafa rafet wala Europe boo fa demee da ngay tëdd nelaw di lekk ba suur di naan ma mandi non non non non ñiy dem dañuy dem parce que dañoo amatul yaakaar ci dëkk bi il faut que ngeen comprendre loolu dañoo amatul yaakaar yaakaar gu tas nag mën na rey sax nit fii ñaata nit nga fi gis seen yaakaar tas si àdduna ñu jaaree fa dof yoroon ay million xëy yoratuñ dara ñu jaaree fa dof bari na du fi jeex ñaata nit nga fi gis seen yaakaar tas ñu yoroon ay million pour seen avenir xëy millions yi ne fus ñu xaru parce que yaakaar gu tas la yàlla na ñu si yàlla musal yaakaar gu tas mooy tax nit dem ba moom jàpp na ni géej gi muy dem di songu nii ak sedd beeg lépp normal la mu leer ko ni mën na ci dund mën na ci dee mu song ko nit bu demee nag ba tollu ci niveau boobu kon nag war nañ taxawaat ne hey ñun sénégalais kat li waral boo yii dem ba toll ci niveau bi war nañ mooy leer du leen lu dul dëkk bi ni muy doxee moo baawul waaw ñu taxaw xeexu dëkk bi tegu ci yoon loolu mooy li nga xamante ni moo am nañu am courage xeexal sunu doom yi ak sunu sëti ëllëg gars yi gars yi ni ñuy sonnee di tabax ay kër di sonn di tax ay jabar di yam ay doom nañu sonnee noonu ngir baal leen fi avenir bu baax avenir bu baax mooy alal gis nga kër loo fi bari la bari la bari la te dëkk bi tegul ci yoon moog zéro ñoo yem parce que ñàkki jàmmi dëkk boobu mën na dem ba kër yi nga fi bàyyi say doom yi ngay xalaat ni ñoom nga ko fi bàyyi nit ñëw taxaw jaay leen doole nangu ko mooy suufu jàmbur yi ñuy nangu ñu wante dëgg képp ku jàpp ni yow am nga loo fayalee sa doom muy jàng ba ami lijaasaam gis nga ñàkki jàmm réew mi dina tax ba doomu ku la ëpp doole fuuf mooy ñëw fekk poste boo xamante ni sa doom moo ko mérité woon mérito ñu nangu ko bàyyi sa doom muy wëndeelu di taxawalu ci mbedd bi waawey ah loolu mooy li am de te réew mi foofu la nekk mooy branlon yi ngay dégg pour nga liggéey sax dañ la demal seeti diw wala xamante nga ak diw mais réew bu demee ba toll foofu nag mooy kon ça veut dire que nit ñi dañu war a jug taxaw gis nga Sénégal ni muy doxee muy Europe muy Amérique muy dëkk boo gis ci àdduna noonu la daan doxee corruption injustice jaay doole boobu bi fi buur yi nekkee mais nag dafa am ay génération yoo xamante dañ ne nag hey ñun lii nuy dund nii dootuñu ko dund ne serait-ce que pour les futures génération pour sunu doom yeeg sunu sët ñu jug am taxawaay bu mat sëkk itali gii ba mu changé yàggul chaque jour moo ko dans les années quatre-vingt-dix la commencé di changé. nit ñi ñoo taxaw xeex ko xeex ak Mussolini jàpp ko rey ko fii teg dëkk bi ci yoon boo demee Allemagne gars yi dañ taxaw xeex ak Hitler dëkk boo fi tudd fii dafa am révolution nit ñi taxaw ñuy dund dund ñuy dee dee dëkk bi tegu ci yoon nga Sénégal ni muy doxee dëkk yëpp noonu la doon doxee. dañ daan jaay nit ñi doole di rey nit ñi di nangu seen ay suuf di leen jaay doole loolu moo am Sénégal ku ko wax ak ko ñàkk wax loolu moo am Sénégal kon nag nañu jug taxaw doon benn say le 17 c'est un jour très important jour la boo xamante ni suñu projet ci lay jaaree continuer ba faw wala ci lay jaaree ñu gas ko suul dañu wax di dëgg parce que le 17 boobu bu ñu amul taxawaay bu ci mat sëkk mooy may nañ Macky Sall lépp loo xamante ni bëgg na ko defati ci réew mi dina ko def te Sénégal du état de droit moo waxal leen ko nekkatul état de droit Macky Sall doxatul ci yoon doxatul ci dëgg te kenn ñemewul taxaw di ko ko wax li si njëkk mooy ñoom dañ daan wër naan justice justice justice Sonko na wuyu justice Sonko day attaqué institution judiciaire yi Macky Sall fii lañ taxaw justice ne ko du ne ko joxal Ousmane Sonko ay fiche de pare am dugal ko ci liste dugalaat ko ci liste électorale yi mu bañ ne du respecter décision de justice Macky Sall musul respecter décision de justice li ko dalee ci l'affaire Karim Wade l'affaire Khalifa Sall ba tey suñ jon yàlla tey jii te kenn du ko ko ñamee wax nga réew mi du sëriñ du xutbu du yonenti du kenn koo xamante mun na ñu xeexal li fi nekk lu dul ñun loolu mooy dëgg da ngay dégg nit ñi naan sëriñ si nañ wax nañ wax nañ wax sëriñ si duñ wax parce que li tax duñ wax mooy Macky Sall dafa xamoon li daaneel Ablaye Wade mu jug fatt foofu Abdoulaye Wade li ko daaneel 2012 du lenn lu dul yenn sëriñ yi nekkoon ci suuf di jàppale Macky mu xam ko dëgg bal bi Abdoulaye Wade yenn yenn yenn yenn imprenditoire yi muy maanaam yenn homme d'affaires yi yenn homme d'affaires taxawoon di xeex Abdoulaye Wade Abdoulaye nekk démocrate xam loolu noonu yëpp bàyyi ci biir patron de presse yi daan xeex Abdoulaye Wade magista Abdoulaye Wade xam lool noonu yëpp bàyyi ci biir activiste yi chroniqueurs yi journalistes yi Macky Sall noonu yëpp la xam moo tax bi mu faloo foofu noonu yëpp la dem fatt moo tax réew mi kenn du wax du musicien du kenn kuy jóg di wax sëriñ suñ doon yaakaar Macky Sall musu leen faale fii la taxaw daan ne les marabouts sont des simples citoyens kon ab sëriñ ak koo mënti doon Sénégal du taxaw di wax Macky Sall naan ko defal muy def bàyyil muy bàyyi Macky Sall li tax woon mu wax les marabouts sont des simples citoyens daf ko xamoon xam na ko te am na fu mu ko teg moo taxoon mu wax ko dañu wante dëgg moo tax biñ ne bëreet bi fi njëkk a falu ay sëriñ la jàpp tëj leen ci kaso bi dañu wante dëgg fexe ba corrompu sëriñ yu bari ba nga xamante ne tey duñ namee taxaw génn di wax loolu mooy la réalité patron de presse bu nara wax mu fekk la corrompu la jaay la doole tiital la koleel la dossier loolu mooy li am c'est la triste réalité imam ku mënti doon Macky Sall tey di la tee foo xamante ne sañoo génn di ko wax quoi que ce soit jël système bi yóbbu ko ci niveau boo xamante ni c'est extraordinaire dafa kawe loolu xam nga ni bu ñu demee bay seriñ toog fii mu leer la leen ñoom li ñuy wax ni seen diggante yàlla bu ñu wéete yàlla duñ ko wax ñu taxaw naan Macky Sall moo gën ci ñun kon c'est grave buñ ko yaakaar ci kenn ñun ñoo mën a xeex réew mi te kenn duñu changer réew mi ku dul ñun sénégalais yi man loolu gëm te loolu laa yàgg a wax kon nag il faut que ñu taxaw temb nag sauver li nga xamante ni la jeunesse te sauver la jeunesse lenn jiitu ci lu dul sauver le président Ousmane Sonko loolu mooy li am Ousmane Sonko a mis sa vie man mii di wax lan laa war a teg pour sauver dëkk bi man mii di wax lan laa war a def lan laa war a ñàkk que chacun soit pour fair le sacrifice comme Ousmane Sonko ni mu ko waxee woon boo koy wax na dañ naan kii nitu fitna la du nitu fitna Sénégal il faut ñu pare ñàkk dara pour Sénégal changer kon nag bu fekkente ni Macky Sall dafa xamul ni daaneel Abdoulaye Wade mu mujj taxaw fatt foofu noonu yëpp fexe ba kenn du ŋaang ci dëkk bi fexe ba tax lu ëpp ci Sénégalais yi ragal ko mooy kon ñun bu ñu takkul suñu fit dëgg dëgg dëgg mooy li fi nekk du mës a te loolu na ngeen ko xam kon nag la balee dans notre camp waaw kon ngeen xam ni réew mi moom dara du ko changé lu dul xeex te gis nga Ousmane Sonko gàcce ngalaama jaanam wàcc na bu fi yemoon sax mu neex parce que fexe na ba ñëpp yeewu parce que tey même bu nekkul président ñun ñoo ciy perte mais Ousmane Sonko li mu waroon def def na ko il a fait ce qu'il avait def na ko. nekkum président am ñu ñoo ci bénéficier wu rek mais moom mission am réussir na ko beneen bi si mooy nañu jàpp ni ñun sunu doom ak suñuy sët la xeexal nañ jàpp ni ñun suñu doom ak suñuy sët lañuy xeexal xeex bi ci niveau boobu la war a toll maanaam xeex ngir say sët xeex ngir say doom ëllëg ñun buñ doon dee ba jeex tamit nañ réussir li nga xamante ni mooy ndam li loolu mooy message bi loolu mooy li am loolu moo war a nekk taxawaay bi loolu moo war a nekk doxalinu ku nekk ci ñun loolu mooy dëgg lu leen fi waay wax te waxu leen lu dul Macky Sall mii ay carte du ko fi jëlee xeex ak moom moo ko fi jëlee mi ngi leen ndax Ousmane Sonko wax na ko waxati ko waxati ko waxati ko kon buñ ko yaakaar fenn kon loolu moo nekkoon message wi eh, ñu ñu ñu ñu defaruwaat waajal le 17 bu baax a baax a baax mooy li may wax rek ñun diaspora bi moom lépp luñ ci mën danañ ko def. ñun bañu ñu si ba ti ñëw Sénégal amul problème mais na ngeen am jam na am ndam nekk ci jàmm waaw ñu focus ci le 17 incha allahu rabi sénégalais yëpp gën fajar ñëpp gën taxaw parce que lii warul jàll kon na ngeen ko xamee noonu kon ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp euh, vraiment di leen masawu coono euh, di leen félicité aussi. ndax euh, ay jàmbaar ngeen ndax euh, vous êtes des dignes sénégalais waaw ay sénégalais yoo xamante ni ngeen ñu bëgg Sénégal ngeen waaw waaye nag nit dafa am foo xamante ni boo fa tolloo ki la war a jooyal bu la jooyalul yow nga fomp say rongañ ca jug jooyal sa bopp loolu mooy li nga xamante ni mooy li xew xam nga réew mi bu ñu demee ba tëj université kenn ngaangul kenn waxul université école ubi ba léegi université tijjuwuñ ko ndax ay affaire politique c'est grave mooy kon foofu yéen dañ leen wan ni yéen seen njàng intéressé wuñ yéen doom baadoolo yi parce que ñoom seen doom yi ñu ngi Europe di jàng dans les plus grandes universités ñu leen di fayalee l'argent du contribuable yooyu rek dafa nekk yoo xam ne analyse yooyu il faut sénégalais yi di ko indi ñu toog naan dëkk bi baax na dëkk bi mi ngi dox te pourtant ñoom seen doom yi ñu ngi Europe di jàng ñu teg université yi ñii di toog naan Sénégal dëkk bi baax na te ñoom bu ñu feebaree duñ si fajoo dañuy dem Europe faju foofu ak seen doomi ak seen famille yi ñii toog naan Macky Sall moo baax ci ñun te ñoom ñëpp tey ku ci nekk ces traîtres la bu ñuy faju ji Europe la ñuy fajoo bu seen doom yi feebaree Europe lañ leen di fajee seen doom yi Europe la ñuy jàngee ñu ci bari la ñuy lekk léegi Europe lay jóge loolu rek jar na sénégalais bu nekk xeex ba dee loolu mooy li nga xamante ni mooy dëgg amul leneen lu fi waaye wax lu dul taxaw faire fas avec Macky Sall da leen di nax man gëwuma lool man li ma gëm mooy xeex yàgg naa ko wax Omar Diallo mi ngi nii di ma seetaan yàgg naa ne ko Macky Sall mii xeex rek mooku ko fiy jëlee te samay vidéo yëpp ku koy déglu loolu ngay yàgg dégg ma koy wax xeex xeex taxaw def fas ak moom fu mu yem neex dëkk bi baax ba faw mbaa ñëpp ñu bokk ñàkkandoo man lool laa gëm gëmuma leneen lool loolu kon asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax xam naa di leen jox dig daje fan yi dinañ bala di desan incha allah rabbi waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax waaw di leen wax di courage jaa ngeen jëf